Tamsir Faye ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu soxna si madame Thiam madame Ngom. yow yaay directeur général bu ANPEJ ñu am mbégte dalal la ci réew mi FM tey alors euh, ñu mm-hmm. wax ci mbirum euh, xëy ci Sénégal mu nekk jafe-jafe ngir régime yi nga xam ne yëpp daanaka ñoo toppante euh, ci sa xalaat lan moo waral mbir mi daal wéy di nekk jafe-jafe ci njiit yi fii ci Sénégal ñàkkum xëy ndaw ñi. waa soxna si maa ngi lay gërëm di la sant invitation bi ñu ma invité. ci seen matinal bi di di di nuyu sa auditeurs yeeg sa auditrices mm. euh, di leen di nuyu bu baax a baax di rafetlu aussi question bi nga xam ne question actualité la bu nga xam ne posé nga ma ko euh, pour pour pour affaire euh, liggéeyu ndaw yi li ma bëgg a wax rek mooy liggéeyu ndaw moom dafa nekk loo xamante ne lu lu métti la lu jafe la ci réew yi en général muy réewu Sénégal muy réew yenn réewu Afrique yi muy réewu Europe yi réew yi nga xam ne dañu am doole sax ñun nga xam ne ci maanaam ci réew yu gën a am doole ci àdduna bi lañ bokk dañuy jànkonteel problème mu liggéeyu ndaw donc liggéeyu ndaw suñ ci suñ ci deful démagogie cest à wax wax lu neex nit ñi rek mbaa wax wax lu neex euh, suñ ci waxante rek ngir yàlla dinañ xamante ne dem euh, nu mu tudd liggéeyu ndaw problème mu àdduna bi yëpp la léegi soo ñëwee Sénégal. Euh, suñu dëkk yi ak nu mu tëddee ak économie nu mu tëddee nga xool ak crise Covid bi nga xamante ne dafa nasaxal économie àdduna bi yëpp yi nga xam ne dañu am doole sax tey dañu seen chômage dafa explosé waxatuma sax problème mu ndaw mais problème mu chômage liggéey kese seen problème mu chômage dafa explosé léegi nit ñi nekkatuñu sax di calculer taux de chômage parce que euh, euh, référentiel yëpp ñoo noo amatuñ dañu yàqu donc suñu nekkee ci situation yooyu mënuñu xaar Sénégal leneen lu dul ay difficulté ci wàllu ndaw ak wàllu xëy parce que Sénégal ci àdduna bi la nekk nekkul ci ci jaww ji li nga xam ne day impacté yeneen dëkk yi wa ilaa amul Sénégal nan la mën a def ba mënu ko impacté loolu mooy situation bi mu nga xam ne moom la réew mi nekk moom la àdduna bi nekk loolu dama bëggoon ñi nga xam ne dañuy yor seeni kàddu di wax nekk ay politique mbaa ñuy nekk ay technicien ñuy wax loolu fàttali ko réew mi réew mi xam ko parce que loolu mooy réalité àdduna bi tey hmm. leneen lu fi wax leneen da ngay wax lu la neex. mais est-ce que Sénégal mi ngi def ay jéego pour saafara mbir mi. waa xam nga xam nga xam nga dama la ne Sénégal dama lay wax rek xam nga wax jëloon naa exemple ci bu may wax français. Hmm. Sénégal dafa nekk dëkk boo xamante ne dëkk ndaw la. xam nga wax naa la léegi dëkk tubaab yi nga xam ne sax ay puissance lañu ci ay ci àdduna bi dañu régler problème yu bëri dañu am problème ndaw te ñooñu soo xoolee. seen courbe courbe bu population yi seen population yi maanaam ñi ci ëpp ay màgget lañu yaa ngi dégg wax ji ñi ci ëpp ñu mag lañu ay mag lañu te pourtant ñoom dañu am problème mu ndaw waxatuma ñun ñi nga xam ne nag suñu suñu courbe suñu population li ci ëpp yëpp ay ndaw la soixante cinq la ñuy wax soixante dix pour cent donc loolu mooy problème bi nous on a une population très jeunes bu nga xamante ne jeune ba pare former pour la plupart ba nga xam ne su ñu ñëwee ci ci ci chaque année ci marché de l'emploi maanaam deux cent quarante mille mooy ñaan nag ñeen ñaar ñaar fukk ñeen fukk ñeen fukk c'est sax hmm. ñeen fukk ak ak ñaar téeméer ak donc man séeréer la suma <laughs> affaire bi leerul mais daal deux cent quarante mille personnes ou plus même ñooy ñëw chaque année ci marché de l'emploi hmm. waaw ñaar téeméeri junni ñooy ñëw ak ak ñeent xaw ñeent xaw j'en sais rien voilà deux cent quarante mille daal ñoo ñëw loolu à peu près mm. chaque année sur le marché de l'emploi yaa ñu dégg te suñu xoolee li nga xam ne mooy parce que état xam nga état du créer emploi mm. état dafay créer ay conditions pour ñu créer emploi mais soxna si mm. sooy créer créer ay conditions ba ay créer ay conditions pour ñu créer emploi pour le secteur privé yooyu ñu créer emploi ñu nekk ci crise boo xam ne dafa nasaxaay secteur privé bi lan moo ci conséquence bi du ñàkk na liggéey. waaw mais mais est-ce que waruñu woon gën a jàppale secteur privé bi au lieu que ñuy miser ci financement yoo xam ne tamit chaque jour du jur njariñ la ñu ciy séentu. xam démagogie xam nga fan lay yóbbu ci euh, réew. Hmm. ci ci ci guute rek lay yóbbu réew parce que réew mun nañ ci nekk ñu opposé wante. Hmm. niñ xalaat li nga xalaat mais ñu wax li nga xam ne loolu mooy jëmal réew mi kanam te liy jëmal réew mi kanam kanam mooy ñu wax li nga xam ne mooy dëgg gi wax ndaw ñi ne situation yi la am situation yi lañ fekkee lii la juuf. mooy crise Covid bi mooy la cap la capacité capacité bi nga xam ne suñu secteur privé ñàkk doole gi mu am ñàkk doole pour jëli ndaw employé leen problème formation bi dinaa ci ñëw mais tey soo xoolee euh, si deux cent quarante million yi di ñëw ci emploi euh, ci marché de l'emploi quatre vingt cinq mille rek la ci état ak état yu muy créer tuuti ak ak emploi ak secteur privé lu ñuy créer emploi quatre vingt cinq mille la soo jëlee ñooñu ñu jël leen quatre vingt cinq mille ñaata mooy des cent et quelques mille chaque année année ak année ñuy teglante wu teglante wu looloo tax situation bi difficile te beneen régime bu fi ñëw suba aussi di nga am problème yooyu parce que c'est pas une situation facile maintenant dafa am lu ma bëggoon wax ci secteur secteur privé bi mm. Sénégal dama yaakaar ne nit ñi foog ñu nekk ay patriotes ci réew mi moom patriote sax dégg moom comme c'est un terme boo xam ne ku mu neex nga utiliser ko lu la neex bëgg réew mi daal naa wax bëgg réew mi parce que nit mën nga am sa xaalis euh, nga ne da ngay ci ay domaines yoo xamante ne da ngay investir ci ay domaines yoo xamante ne euh, dina mën a am ay xëy pour ndaw yi mais soo jëlee ñu bari Sénégal ku ci ñun ñëpp dañu am habitude bi yow tu préfères yow nga investir ci benn affaire boobu day indi xaalis day créer emploi day no yow da ngay dem créer def tabax say immeuble rek muy dem alors que immeuble ñi ci mën a liggéey bari wuñu yaa ngi dëgg mm-hmm. il faut que frilosité bi sax nit ñi frilosité bi ñu am ci ah, yeneen ñi ñooy ñi nga xam ne dañuy gagné marché état rek yow soo gagné woon marché état rek yow entrepreneur daal foog nga gagné marché état rek pour nga nekk entrepreneur yow dañ lay jox marché état nga exécuté jeex na toog non loolu du entrepreneur un entrepreneur aussi day day xalaat créer loo xam ne mun na créer richesse pour dëkk bi loo loo xam ne mun na jur xëy pour ndaw yi yaa ngi dëgg mm-hmm. loolu benn loolu aspect la beneen aspect bi mooy li nga xam ne situation bu nga xam ne ñun ci ñun état parce que dama wax privé bi mm-hmm. dinaa la wax li ma yaakaar aussi ci privé bi suñ ko defee ndax dina jur njëriñ li ci yaakaar sama xam-xam bu tuuti mais ci état li nga xam ne mu ñu ngi koy def te peut-être mën nañ wax doyul mais mënuñu wax échec la parce que échec suñu waxee loolu àdduna bépp échec suñu waxee échec politique la rek àdduna bépp échec ci politique yooyu donc état bi ba muy ñëw au pouvoir ba ñu présent Macky Sall di ñëw au pouvoir en 2012 soo xoolee réew mi. Euh, soo xoolee euh, budget suñu budget formation professionnelle vingt quatre milliards la woon Macky Sall deux mille dix neuf budget bi mu nekkoon soixante dix huit milliards soo xoolee ñi nekk nga xam ne ñu ngi ci centre de formation yi trente deux mille personnes la woon ba ñuy ñëw deux mille dix neuf plus de quatre vingt mille après apprenants chaque département danañ fa construire commencé nañ ko parce que yaa am na Fatick am na ak ak yeneen ak yeneen mhm. chaque département l'ambition de construire un centre de formation professionnelle un lycée de formation un lycée professionnel yaa ngi dégg à côté de ça on a construit des ISEP tout ça pour lan pour prendre en charge pour prendre en charge la formation des jeunes ñu nga xamante ne dañuy décrocher parce que Sénégal dafa bëri yoo xam ne dañuy décrocher. Mm. entre soo jëlee sur dix jeunes yu nga xam ne dañu dañuy inscrire primaire balaa ñuy yegg si université ñaata ñoo des ci ñaata ñoo des ci ginnaaw ñaata ñoo accéder à l'université. kon daal si tënk effort yi bëri na waaye xëy na problème bi moo toll noo xam ne euh, tëb tëb saafara ko du nekk benn léegi li président sàll gis comme solution bokk na ci financement yi maa ngi la koy wax sànq. annoncé na si mhm. discours am samedi bi quatre vingt milliards yoo xam ne dañ ko décaissé fii ak mois de mai pour euh, xëy na ndaw mhm. ñu mun leen jël ci ay secteur yu yu yu wuute. Euh, loolu dogal mhm. boobu lan la mun a indi comme saafara ci wàllum xëy mais aussi ak sax le fait que ndaw yi mun a dem. am liggéey muy employabilité. waaw xam nga xam nga employabilité euh, employabilité euh, structure état yi def comme ANPEJ ñu ngi ko ñu ngi bu baax a baax euh, ci ci ndaw yi di ci jàppale ci ay programme mais xam nga président disposition boobu mu jël ma man dama koy saluer ma ko ciy félicité parce que nag nekk nañ ci situation boo xam ne lépp disposition boo xam ne jël nañ ko pour que ndaw yi mën a liggéey dañ ko war a accueillir bañ ci nekk di ci wax ay waxu politicien parce que ay effort la état bi di def dañuy def loi de rectificative tàgg fi tàgg fële tàgg yi fële dugal ci njaw ni jël leen parce que ndaw ñi aussi ñu ci bari dañuy soxla liggéey le premier boulot amaguñ ko yaa ngi dégg donc loolu dina nekk loo xam ne lu baax la loo xam ne ndaw yi dañ koy xaar à côté de ça il cent cinquante milliards yu nga xamante ni dañ ko dégagé dans les jours à venir ñu xool aussi boobu xamaguñu nan lañ koy nan lañ koy nan lañ koy dispatcher mhm. ou nan lañ koy doxalee donc y a le conseil conseil bi war a am le dix je pense que à, à partir de ce conseil la de décision forte seront prises et que seen application immédiate lay nekk et puis l'argent sera décaissé pour en tout cas euh, aller dans le sens de la de euh, nu ñuy defee ba régler en tout cas def ci ay jéego yu mag a mag ci affaire xëyu ndaw yi. mais est-ce que financement yi mooy solution Tamsir financement yi euh, souvent ni ma la ko waxee sànq li ñu ci xaar bëriwul li ñu koy gis ndaw yu bari seen projet yi du dem ñenn ñi dañuy am problème pour rembourser loolu taxoon ma laaj la est-ce que tey peut-être solution bi nekkul ci gën a dooleel secteur privé bi bu ko defee ñu gën a mun a jël ay ndaw. je suis je suis je hmm. man je suis en partie d'accord avec vous. Mm -hmm. parce qu'en vérité si des in des des nu mu tudd des financements au Sénégal. li ci am njariñ bari de mille neuf cent soixante mille neuf cent soixante ba léegi échec la financement yi. waaw voilà. et ça c' est la responsabilité de l' État c' est la responsabilité aussi des jeunes parce que wax bi dañ koy wax bu tëdd. c' est à dire il faut que deux mi aussi ñu bàyyi démagogie. Mm. un jeune qui vient ñu lebal ko xaalis moo xam ne dañ ko ko lebal mu dem lekk xaalis ba doxee soxlaam c'est un irresponsable. waaw mais état tamit est-ce warul changer doxalin ndax munoo di def benn mbir doxul après tamit nga continuer si yoon boobu rek su yàggee mbëkk miir nga jëm alors que am na fi tey secteur privé bi ñoo xam ne bu ñu leen jàppale woon dinañu mun a jël ay ndaw yu bëri yaa ngi wax sans problème. Euh, xëy bu njëkk mais des exemple dañuy organiser forum du premier emploi. dimbale ndaw ñi pour ñu am seen ay xëy yu njëkk. xam xam xam xam lan laa laa bëgg a wax si mm. on peut faire on peut faire les deux. Hmm. am na jeunes yoo xam ne ils ont des projets. à condition mu am suivi il faut oui suivi bi xam nga ce que je veux dire hmm. il faut que ñun ñëpp il faut pas que nous soyons là hmm. chaque fois état état état loolu jëmalul réew mi kanam parce que. les gens qui no les gens ouais, qui prennent dafa am responsabilité boo xam ne yamu ak. non mais d'accord non je c'est pas c'est pas non da ni état amee responsabilité su nekkee dañu considérer que réew mi ñun ñoo ko bokk. su nekkee dañu considérer ne dañu bëgg réew mi jëm kanam. ku nekk da ngay jouer sa partition c'est pas que l'État c'est tout le monde les citoyens lambda chacun da nga am sa devoir ak sa droit mhm. la responsabilité des jeunes ñi nga xam ne dañ leen di jox xaalis ak fu ñu mën a bokkan ah, man qu'importe dañ leen jox xaalis mooy ñu xam ne xaalisu état la te état bi xaalis boobu nu mu la ko yow dañ la tànn sa morom mu ngi xaar war nga ci mën a liggéey ba sa moroom jot mhm. loolu mooy responsabilité individuelle des uns des autres beneen affaire bi man dama yaakaar ne financement baax na mais il faut pas faire tout financement parce que tout financement euh, tout le monde n'est pas entrepreneur tout le monde n'a pas la veine d'un entrepreneur voilà je pense que euh, il faut aller vers le, le, secteur privé et le secteur le vrai secteur privé pas ay secteur privé yoo xam ne dañu gàddu seen kayit di dox ay secteur privé yoo xam ne amuñu benn emploi ay entreprise yoo xam ne dañuy occuper télé ak rajo yi te amuñu kenn nit kenn xamuñ fu ñu nekk il faut une identification sérieuse des PME ak PMI yi nga xamante ne am nañ au minimum dix à quinze personnes hmm. ou cinq personnes j'en sais en tout cas am activité bu bu réel di fay di fay nu mu tudd impôt l'État du Sénégal nekk dans une activité légale lu nga xam ne bëri na Sénégal hmm. y en a beaucoup ces gens là y beaucoup de jeunes parmi ces gens là aussi ces gens là à mon avis il faut que ñu def un travail de recensement ça je l'ai proposé bind naa ko wax nañ ko depuis il faut faire un travail de recensement parce que ñun en réalité ce qui nous manque souvent c'est les outils d'insertion outils insertion mooy euh, jeune baa ngi nii jàng na pare na mbaa jeune baa ngi nii am na formation pare na léegi entreprise bi bëgg na ko jël nan la ñuy def ba entreprise bi jël ko état ngi nii entreprise baa ngi nii nan la ñuy def convention état emploi moo fi nekk te convention état emploi bi malheureusement je je pense que c'est pas ça marche pas bien je pense il faut que ñu faut ñu repenser ko état bi def un dispositif bu nga xamante François Hollande defoon na ko François Hollande defoon na ko il avait donné quinze milliards au privé mais ñëpp gis nañ ne après bu Macron di ñëwee la croissance da doon jógaat parce que les entreprises Euh, deal bi nga xam ne amoon na ko ak entreprise entreprise bi euh, entreprise yi respecté nañ ko ba taux de chômage bi wàccoon na donc il faut que ñu amoon na avis ñu dem ci sens boobu hmm. en mooy exonération fiscale mooy lan c'est-à-dire que ñu xool entreprise yooyu yëpp ñu boole leen ñu leen léegi euh, peut-être on aura deux cent ou trois cent entreprises ñu ne leen écoutez bon ñun ñu ngi nii dañu am suñu xaalis dañu am mille jeune à prendre mille jeune profils yaa ngi ñuy identifier profil yëpp ñu ne leen léegi yéen ñaata jeune ngeen entreprise bi ne ñaata jeune nga mën a jël est-ce que mën nga jël dip yow yaa ngi fay impôt à peu près cinquante million ñu ne waaw léegi yow soo soo soo ñu jëlalee dix dix jeunes léegi dañ lay wàññil impôt bi dinañ la dindil peut-être cinquante millions yi mbaa dinañ la dindil millions yi mbaa dinañ la dindil trente millions yi yaa ngi dégg mais soo soo jëlul jeunes yi nag. à la fin si on contrôle ko jëlal jeunes yi danañ jëlaat xaalis bi xaalis buñ xaalis bi ñu la waroon fay dañ koy fayee ko waat mm-hmm. yaa ngi mm-hmm. je pense que si on fait ça ou ñu accompagner leen ak convention état emploi boo xam dañ koy renforcer c'est-à-dire je pense maintenant la convention état emploi c'est huit cent millions mm-hmm. mais ñu renforcer ko yokk ko ba mu ba pare dugal ko ci dispositif boobu nga xam ne day permettre accompagner ces petites et moyennes entreprises parce que en définitive man dama yaakaar ne balaa ñuy industrialiser réew mi ak pétrole beeg gaz yeeg mm-hmm. yooyu ñooñu ñooy ñooy créer emploi ñooñu ñoo mën a absor absorber absorber la la la masse de jeunes. d'accord à côté à mm-hmm. côté des programmes yi nga xamante ne état bi am na ko ñu nga xam ne ñu ngi koy doxal. Mm-hmm. aussi il faut peut-être ñu bàyyi ñoo xam ne war na parce que initiative personnelle am na ñoo xam ne ils ont des initiatives personnelles performantes mhm. des bonnes initiatives yu nga xam ne dispositif bi mhm. le président à partir du unique bu nga xam ne ñun suñu waa ANPEJ ñoo ko ñoo ko mettre en place mhm. dinañ ko expérimenter dañ ko def dans les départements yi nga xam ne day regrouper toutes les structures yu nga xam ne dañuy activer dans le domaine de l'emploi des jeunes et ça permettra accessibilité bu rafet proximité bu bu jege euh, service public de proximité bu nga xam ne day fe day comme nuñ koy defee ANPEJ mais ñeneen structures yi dañ ciy ñëw parce que ANPEJ mu ci région yi yëpp ci département mi nga jiite ak yeneen yeneen kuréel yu mel ni moom euh, nguur yi fi jaar yëpp bu nekk taxawal mais est-ce que dëgg dëgg dëgg am nañu solution bu ñu indi ci jafe-jafe xëy ndaw ñi ci Sénégal. ah ANPEJ dafa nekk benn pàcc ci dispositif. wax daal wax nga privé bi yow yaa ma wax privé bi noonu. Hmm. privé bi ci la bokk. public bi ci la bokk ñun ñëpp ci lañ bokk ku nekk fa nga nekk gis nga affaire emploi des jeunes tant que bàyyin di ko politiser di ci wax ay waxu caaxaan du dem il faut que ñu xam ne c'est une question transversale c'est une question bu nga xam ne dafa war a transcender les clivages politiques nit ñi xam ne question difficile la parce que dafa concerne la jeunesse la jeunesse c'est l'avenir du pays donc kenn amu fi intérêt di foye ay ndaw kenn fayu fi ay ndaw li fi nit ñi mënoon def def nañu ko ci en fonction de leur possibilité maintenant duñu toogee ba à un moment donné mën nañ xoolaat hmm. évaluer politique yi xool lan lañ ci mën a changer coppite ak nii ak nii loolu àdduna moo demee noonu du ay échec mais àdduna mooy adduna boo gis yow même fa nga nekk ni di liggéey di nga toog ba ci kanam Euh, nga ne waa dinaa changer di changer pour mu gën a efficace pour mu gën a efficient parce que ce qui était valable peut-être il y quatre ans ne l'est plus aujourd'hui. dëgg la jërëjëf c'est du monde. dëgg Tamsir Faye ñu ngi lay gërëm amoon nañu mbégte dalal la ci matinalu Rewmi FM fàttali ni yow yaay directeur général bu ANPEJ. merci beaucoup madame Ngom merci maa di gërëm di leen sant di gërëm sa auditeurs yi auditrices yi yëpp. jërëjëf di leen di nuyu yéen